ba mu koy wax dafa sampaale kuréel bu ñuy wax OFNAC bi mu ko sampee daan ne OFNAC pour ñun la mais CREI yi bi ma fi fekk pour ñi fi nekkoon la mais gis nañ CREI yi fa mu mujj gis nañ OFNAC xëy na fi mu toll. léegi nag euh, dossier ya fa nekk di nelaw wala dossier yi ñu waroon a càmbar wala dossier yi nga xam ne ñu ngi doon xaar pour ñu liggéey ci liggéey boo xam ne dana leer ba askan wi xam ni kat lii kat ay la yéwén def nañ ci rigueur loolu yëpp xalifa Furaas daanaka. dañuy jàpp ni conc bi mu ci teg dafa diis daanaka te soo xoolee li édito bi wax muy kudd ay kilo ñebbe ñu koy jëndee loo xamante ni jéggi na dayoo ci ñebbe bu daan seer ba seer six cent francs ay kilo ñu koy facturé nangam ak nangam ay kudd nga dégg fi koo xam ne kudd li mu koy facturé mara détail loolu yëpp daanaka xalifa dafa doon loo xam ne manque de sérieux ak manque de bi nga xam ne amoon nañ ko ci population bi ñu jiite woon ak ci direction yi ñu mel ni ñoo xam ne dañuy xiif Euh, xiifaay boo xam ne yow boo gisee euh, xéewal goo xéewloo rek dootoo ànd ak sa sago lool nag buñ la nomee fenn. Mhm. balaa ngay liggéeyal askan wi balaa ngay liggéeyal li tax ñu teg la fa yow da nga naan naa profité lijjanti sama bopp lijjanti ñi ma jege lijjanti lépp lu ma souffriroon te moo di ak càcc goo xam ne da nga ciy boole sàcc gu ñàkk kerse ñàkk war ma ñàkk yërmande loolu nag xalifa dañu ñoo soxla mu am rupture rupture bi nag mooy rapport yi. Mhm. nous koy def magistrats lañ ay corps de contrôle lañ ñu fonctionnaires ñu leen di fay fay bi leen di fay nag dafa am rentabilité bu muy jariñaat askan mhm. jariñ bi muy jariñ askan bi mooy lépp lu corps de maam lu ñu ba def ko ci ay rapport ba teg ko ba ko kañ ko war a ba ca war a am. Mhm. am ni ku modèle ñu fésal la ba xam yow référence nga ci Sénégalais yi képp ku ci négatif ñu sanctionné la am habitude ngir yow ki pour mu bañ koo def wala mu moytu ko. Mhm. parce que tamit milliards yi am ñu sàcc ko mu bëgg président wax ak ak jël comme décision ci conseil des ministres loolu lañ doon xaar ci xaar ñu baral rapport yi que loxo dana dem 2019 mhm. ñu Mhm. ñuy wax takk rajo dañoo war noppi parce que bu rapport am dinañ seen mhm. voilà justement le président sàkku ci ñu fësal rapport rapport Cour des comptes IGE OFNAC kon na xam